bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak la bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa mbokki senegaal mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di dikk ak yéen tey ci aaxiru zamaan xam naa nekkuñu ci studio bi ñu ngi koy amalee tey ci biti studio bi tabaarakallaahu moo tax ngeen koy gisee nii muy amee nii tey mu ko nii amee tabaarakallah di jaajëfal ñépp ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel jataay bi fu nu ci nekk moo xam ci biir réew mi la wala ci bitim réew jataay bi weesu ñu ngi nekkoon di waxtaanee mbirum daara ak modernisation ñu doon wax ne amelioration la daara soxla mais pas modernisation li waraloon thème bi lu tax ñu wax amelioration ak modernisation leeraloon nañ ko ci émission bi weesu wane ne aha kay daara soxla na ñi koy jàng nekk ci condition yu baax sol lu set lekk lu baax tëdd fu baax bu dee loolu mooy euh, li ñuy wax loolu ñun dañoo jàpp ne amélioration lañ ci soxla mooy loolu mais pas modernisation modernisation bii ñu nuy wax mooy gaa amélioration bee na ca bokk waaye tamit njàng mi li ngeen doon jàng dangeen koy dindi teg fële ñu indi leen lu bees segal leen ko loolu moo waral sëriñ daara yi bañ bay ut ko leen bañ le te dañuy woy di bañ nag ña xam-xam nañu ña xamul xamunu loolu waraloon émission bi weesu ñu indil leen li nekk ci biir projet modernisation des daara bi ni muy yàqee daara ni muy tënkee sëriñu daara bi ci maslaxa bi nga xam ne moom la njàngaleem laaj loolu lañ doon waxtaanee ci émission bi weesu tabaarakallaahu tey nag mbokk yi waxtaan wi xam naa du gudd lool waaye du mëna a ñàkk ñu amal ko li ñuy waxtaane tey day dellu ci ngisaanekat yi ci dëkk bi njabarkat yi ci dëkk bi sarlatan yi ci dëkk bi fatt gi ñu fatt nit ñi njubadi gi mën a wax lu dul dëgg gi waxtaan wala ñu defoon ci ginnaaw dalaloon sunu mbokk male di Oustaz Makhtar ñu ngi ko ci doon leeral waaye tey dañ ci dellusiwaat ndax fan yi ci ginnaaw rekk senegaal mi ngi doon football waaye dañuy seetlu ne léeg-léeg bu phénomène football amee wala bëre ngisaanekat yeeg njabarkat yi dañuy mel na ñu jëfuru waaw dañuy mel na ñu jëfuru kenn ku nekk yaa ngi profité na di way daan bu dee làmb ji la wala équipe sànga may gañe bu dee football bi la léegi yegg nañ ci dëgër fit ak ñeme yàlla bay wax sax ñaata bii la ku ne di dugal yemul foofu waaye aw nit seen ñeme yàlla dem na ba yegg ci ñuy woote wooni dañoo am ay jinne yu leen di wax bii yu nuy dugal ak di dugali bii gis ngeen ko ci bii weesu ba bi Sénégal di mujjee football seetaan naa ci benn palaato mu jural ma yaram wu tàng lool ak xol bu jeex ndax bi ma seetaanee ñu invité charlatan yooyu ñu toog ci plateau bi aw nit woote di leen saraxoo ka ñaan pour senegal na gañe ñuy jéem a wane benn pouvoir bi dama tiit lool waaw dama tiit lool jàq sama digganteeg sama borom naka la aw nit mën ñeme yàlla ba toog ci lu mu dikkagul ñu ciy doggu naka la aw nit mën ñeme yàlla ragal yàlla mën a bokkaale bay woo nit di leen teg palaasu yàlla naan dimbale leen ñu euh, Sénégal na gañe di saraxu di saraxu di saraxu dama mujj sax mënatuma yeggale li ma doon seetaan ndax yaram bu tàng di jooy sama réew pas-pas bu tilim bi dugg ci xol yi di jooy sama réew ci réewum mbaax réewum diine réewum alquran réewum ay góor yàlla mu dem ba léegi réew mi ñooñu euh, suuxat li ñu fi suuxat ci mbaaxak ragal yàlla wéetal yàlla ñu mel ne dañuy bëgg a fàtte ñooñu te fàtte xaju fi seen jàngale bi ñu doon jàngale te bàyyi ko fi ba léegi ñu koy jàngale aw nit wan ko ginnaaw léegi déglootoo nitu yàlla toppatoo nitu yàlla waaye yaa ngi toppi nitu seytaan yi ndax gars yi ay nitu iblis lañu wane nañu ne ay nitu iblis lenu ndax kuy ndamoo ami jinne te jinne yi mooy seytaane rek du jinne yu baax sax la ñuy wax ndax koo xam ne ay jinneem ni mu laaj mooy faw nga dem tuural ko deret samp ay béjjën ak yu ni mel kooku seytaane ngay wootal dem nag ba nit ki ndamoo dama am jinne yu baree baree bari loolu wax dëgg fa yàlla pas-pas bu bon pas-pas bu yàqu pas-pas bu dellu ginnaaw moo waral aw nit ñu mel noonu am baat ci réew mi léegi aw nit it di leen seetee ka gëm a ka bàyyi xel gis naa kenn ci ñoom daan naa dégg rek turam mais taxuloon ma xam ko li ma njëkk bàyyiloo xel ay mbiram mooy benn waay ju def vidéo nee naay nañ ko bàyyi xel ndax sellu na ne depuis Coupe d'Afrique baak léegi lu mu wax day am yàlla nag day maye ci ay jinne la am nangam nangam ma jàpp tur wi waaw mbir yi tollee fii nag ma gis Sénégal bu doon football ak benn équipe gagné ko ñu wane ko muy sibile aw nit ñëw di ko félicité ci loolu nga xam ne moom la Sénégal gagné yamu ca mais ñu koy dalal ci plateau moog ñeneen ñuy wax seen wax yu bon yu yéesu yu ñaaw yi nga xam ni wax nañu ko loolu tax nag ma ne ñu mel nii te dañoo bari lool daanaka léegi seetkat yi ci dëkk bi ëpp potu làmp yi ci dëkk bi waaw seetkat yi ci dëkk bi ak jabarkat yi ci dëkk bi léegi tey ñu ëpp potu làmp yi ci dëkk bi te dara lu dul njublang rek ak jubadi koo xam ne say farata matul say sunna matul sa cell matut mën a fen mën a wax lu dul dëgg ba noppi ne yaa samp war a ñaanal nit ñu yàlla ngir seen aaja faju waaw bi nga melee noonu nga xam ne léegi yàlla mënatul dara ci say ci yow léegi faw nga daw kon tafu ji ci seytaane foofu nga mën a euh, dundalee sa cay sa sa caytaane ngir saytaane di la jay ñalay seet si ne am nañ lu ñuy am ci seen fajug aajo ngay làqatoo ñaan yàlla te fekk dara yàlla nekkatul ci yow waaw ndax mënoo ni da ngay ñaanal nit ñi yàlla ba noppi gën a jubadi ñëpp mënoo ni da ngay ñaanal nit ñi yàlla ba noppi di lekk lu xaraam mënoo ni da ngay ñaanal nit ñi yàlla ba noppi doo julli sax farata yu mat ba noppi ne danga ñaanal nit ñi yàlla du mën a nekk léegi nag pour mottaliku da daw rek tafu ji ci seytaane xam naa jinne yi moom bu ñu amoon doomu bàjjen Sénégal danañ leen kaasal ay jinne yi amuñ fi doomu bàjjen jinne yi ay mbindeef lañ comme nun jinne yi ay mbindeef leen ay mbindeef lañ comme nun fa inna min al muslimun wa min al am na ci jinne yoo xam ne yu gëm yàlla lanu dañuy julli am seeni jàkkaaki juma waaw dañuy aji màkka dañuy génne asaka dañuy woor weeru koor li ñuy def yëpp mu war nu dalee na war ñu ngi koy def boo demee ci téere bee di xiwaaru suxufil muslim ma euh, xibaaru suxufi ma jinnil muslim Moustapha Kane Diop da dang ci xam lu bari wax na ne am na ci jinne yi ñoo xam ne nii ay yéefar lañu jinne yi ay yahud lañ ñii ay chrétien lañu ñii ay jullit lañu ci biir jullit ñi nii ñu séddali ko ñii nekk ci tariixa ñii nekk ñu ci tariixa jinne yi tamit noonu la ñu mel am na jinne yoo xam ne nii ay salafi lañu am jinne yoo xam ne ay suufi lañ waaw am jinne yoo xam ne ay xaadir lañ ñii ay murit lañu ñii ay tiijaan lañu am na ci biir jinne yi loolu jinne ju feeñu nit nekk jinne ju gëm yàlla feeñu nit di waxtaan ak moom di ko wax ñoom ni ñuy dundee kooku moo ci bind téere waaw di ci leeral yooyu yëpp kon du bu ñu tuddee jinne rek dañ di ñu bon alxuraan ne na gis nga yàlla saar la leen tuddee ci alxuraan suratul jinn qul uxiya ilayya annahu istamaca nafarun min al jinn qaalu inna samicna quraanan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada ba saar ba jeex ci biir sunu borom mi ngi wax ni am na ci nun jinne yi ñu gëm yàlla am na ci ñu safaanu ñoo xam ne gëmuñu yàlla léegi nag jinne ji gëm yàlla moom lépp luy yu bon yi daf koy dawandiku ñi ci gëmul yàlla nag shayatinul insi wal jinni yuuxi baaduhum baadan zuxrufal qawli xurura waaw ni mu amee seytaane ci jinne yi noonu la amee seytaane ci nit ñi seytaane nit ñi nag ñoo seytaane jinne yi ñoo def coalition ko defee ña nga lëkkalool ci seytaane yi ñoo am luñ lay wax ak yu ñu lay déey nga koy jottali nit ñi léegi nag loolu la ñenn ñi di bàkkoo léegi ca ña ko ca am sax am na ci ñoo xam ne lëkkaloo nañu ki jinne ami jinne di leen defal la ñu bëgg ñoom itamit ñi leen di defal lu ñu bëgg di teg ay condition pour ñu defal leen li nu bëgg leeraloon nañ ko ci aaxiru zaman bëri tey am na alal yenn yoo xam ne boo ko bëggee dem ci ñenn ñi nga xam ne ñi ngi lëkkaloog seytaane yooyu ñu am yuñ la wax ci ay sacrifice am yiñ la defloo ci lu xaraam nga nangu koo def léegi tey alal ji jóoru waaye fu muy mujj yàllaa xam ndax jëflanteeg seytaane moom amul mujj amul mujj jëflanteek yàlla rek a wóor te ñooñu mooy ñi nga xam ne sax ña nga am relation jinne yi mais gars yi ci bari ni kàcc rek bu jinne noon tëll ci seen kanam ñu jommi wala ñu àbbu seeni maraakis te dafa yàgg nag léegi dangay seetaan réseaux sociaux yi gis ay video yu tasaaro aw ni toog jinne yi sama jinne man samay maam jinne nangam jinne nangam jinne di wuti junni rek waaw bëggi junni te nanguwoo ñaq nanguwoo njub teguwoo ci yoonu njub nanguwoo jaamu yàlla sellal mais ba gi junni te nar a tappale di layooy jinne loolu kese la te ñu ci bari narineen narineen waaye nag ku gëmatul yàlla rek gëm ñooñu ku wóolootul yàlla wóolu ñooñu wax naa ko keroog koo xam ne nii yàlla doyatu la ngir nga jaamu ko ñaan nitu yàlla bu jaamu yàlla ba yàlla nangul ko doyatu la ngir nga dem ci moom mu ñaanal léegi kan moo la doy kuy woote wone daa ami jinne waaw di tuuri deret di sampi béjjën di sampi gënn di tuuri soow di yori laar ak i pettaaw ak i xaaw léegi kooku daal moo la doy innahum ittaxasu shayaatiina awliyaa min duunillah wa hum yaxsibuuna annahum muhtaduun xëy noonu la ko suñu borom waxee ca suuratul araaf yàlla mu ne am na ñoo xam ne ittaxadu shayaatiina awliyaa min duunillah am na ñoo xam ne seytaane yi lañ jël def leen ay waliyu seytaane lañ awliyaa min duunillah shayaatiina shayaatiina awliyaa min duunillah am na ñoo xam ne ay waliyu seytaane lañ ay copain seytaane lañ seytaane la ñuy liggéeyal seytaane la ñuy xëyal seytaane la ñuy gontal ñoog seytaane ay xarit lanu min duni laa ba fi yàlla nag te wahum ñoom ne dañoo yaakaar ne annahum muhtadun ñu ngi foog njortu jàpp ne dañoo gindee gindeeku fekk ñoo gën a sànk kuy sànk xam nga ki toog naan barke sëriñ diw man sëriñ diw rek laa gëm waaw gëm sëriñ diw gëmi jinne mënu la ànd nag waaw man sëriñ diw rek laa gëm boo gëmee sëriñ diw nga yem ci sëriñ diw la mu nekkoon doyloo ko sëriñ diw alxuraan a ko samp su si yeneen tibee ko samp jaamu yàlla sellal ko moo ko samp ba tey yow nga ne taalibeem nga wala sax nga neey nga neey taalibeem nga ndax boo doon taalibeem mu sell da nga nekk ci mu nekkoon léegi nga jël kooku teg ne di woote woon ne am ngay jinne am sëriñ bi am jinne mënu ne am sëriñ bi ami jinne mënu la nekk ñi ñu fi topp ci réew mi du ay jinne leen fal mais yàlla moo leen fal am yàlla gën a wóor ami jinne am yàlla gën a sakkan am yàlla gën a yaatu am yàlla gën a wóor am yàlla gën a sax dafay nit ki lim war a bàkkoo mooy am naa yàlla te ñu am yàlla ñemewuñ koo bàkkoo xanaa ñu santee ko waaw amalu ala daawuda sukkuran wa ama bi nicmati rabbika fa xaddis ñooñu dañuy sante yàlla rek seen am yàlla waaye duñ ko bàkkoo te keroog bi ñu amee yàlla la ñu gën a ragal yàlla ndax mën nañoo xëy tout tout le temps walla chaque moment mën nañoo xëy ñàkk yàlla te innama yaxsha allaha min ibadihi al ñi gën a ragal yàlla mooy ñi ko xam ba tax na kon ñii tey lëmbe nañu lool réew mi ci njubadi te ñu leen gën a tiriyan yàlla sàkku yow mënoo ne da ngay ñaanalaate ba noppi di fen di tiriyan waaw waaye booy njabaralaate nag loolu du ay bu fekkee njabar ngay jëfandikoo man ngay fen man nga naan sàngara man nga njaaloo man nga jubadi yooyu njabar bañu waaye yàlla moom ñaan ko àndul ak di fen àndul ak di lekk lu xaraam àndul ak àndul ak àndul ak dinaay wax sax kii ñaan yàlla nga xam ne mi ngi ñaanee ci alquranul karim di wirdu ay tur yàlla di ñaanali nit kooku sax bu sellalut te dëkkee jaamu yàlla fu mu toll ñaanal nga muy ñaanal nit ñi dana ko lor waxumaa kële nga xam ne moom defu ndax ñaanal nit ñi yàlla mbir yi mooy waral nga am nga am ca la nga bëgg te du la lor bi ci njëkk mooy nga jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla ba yàlla may la martaba léegi ci sa martaba ngay ñaanalee nit ñi yàlla yàlla di faj xaajo yi ña ngay ñaanal ci sa martaba mooy wa yaziduhum min fadlihi gi yàlla di wax ci suuratu nuur loolu mooy martaba gi wa yaziduhum min fadlihi am na koo xam ne nii ci martaba bi ko yàlla defal ci yàlla ci la demee ba lu mu ñaan yàlla yàlla defal ko mooy ku mel ne uwaysinil qarani bi ñuy tuddee xayru taabiin nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law aqsama ala allahi la abara lu mu dog ci yàlla rek yàlla wéyal loolu defal ko loolu martabaa ko maye loolu martaba moo koy maye du ay jaamu yàlla yoo xam ne moom ngay jaamu yàlla yàlla di jëti loolu mooy ko njëkk ki ci ki ñaanalaate kat bi waxuma njabarkat bale de keneen ki mooy ki nga xam ne nii ci jaamu yàllaam la yàllay jël ay bonus ci ay naafilaam lay jël boni su naafila yi di ko fayee wala di ko fajee xaajo ñami ñaanal aha kooku ci risque la nekk moom ba tey li ko ciy génnee rek mooy dëkkee jàng alquran fanaaney naafila di woor di sellal di sikar lu bare bare bari akay ngir ñami ñaanal yàlla mën di jël ci boni sa lo boni su loola di jafaj seen xaajo su ko defee luñ la ca jox ca lool nga leen di ñaanal mu lew la doom dugg ca biir faatixa bële faatixa bële euh, aji mocc ja moccale woon ka màttoon mu weexal ko ci loolu waaw mu lew la doom wala ngay jël xaalisu nit ñi say farata matul amoo martaba nga ne danga leen di ñaanal yàlla di jël seen bàkkaari di la ko këpp di jël say yiw ya nga jotoon a am di leen jox di faj seen xaajo kii ñaan lu moom bu yéeneem seen lay te mu ñaan loo kii ñaan yàlla laa wax ma ki dem ci njabarkat bi maa ngi ciy ñëw léegi kooku moom du perte moom ba ci ki nga jox sa xaalis ñaanalu la defalu la lam la war a defal dem di noos di euh, ñàkk jaamu yàlla yow moom doo perte ndax yéen a ji sell ji nga am kan mooy perte mooy ki dégg ne waa ji borom yi jinne la dafa amee tuur nangam nangam ay tuur nga daw woo ko mu ne dalaa seetal génneel lii defal lii jox ma lii nga sukkandiku ci loolu jox ko sa alal perte nga àdduna perte nga àllaaxir xalak na boppam xalagaale la te léegi nag lii moo bari lii moo bari lii moo bari léegi triant rek koo ne ci carte téléphone dama am soxla sàngam mun lay yónnee ma cinq cent mille yónnee ma un million waaw cinq cent mille kay wax dëgg ku la ko jox nga war koo ñaanal nag ba mu yëg ne ñaanal nga ko def daj ca coono ba mu yëg ne daj nga ca coono téeméeri junne yi moodu moodu ci sedd bu metti bii ci météro yii ah ci bus yi ci marché yii ci lal fu nekk ñu dàq la ci yenu ay kees ci nekk ci tool yi bay ku la ci woo maa ngi Espagne maa ngi Italie maa ngi Belgique maa ngi France maa ngi Londres maa ngi Suisse maa ngi Amérique maa ngi Angleterre nga ne ko yónnee ma un million mu yëkkati un million yónnee la bu la wooyee du la jot keroog nga koy gëj jël ñaata tey ñoo nekk ci télé rajo yi te loolu la ñuy dundee di dajale lu xaraam rek ba noppi nag wéyaat di xalaat aw nit ñu leen di invité ci plateau ñu ci bari pour ñu invité leen ci plateau yi du gratuit da ngay fay xaalis bu weex tàll ñu teg la ci plateau nga toog fay fen ñu baal ma ci wax ji duñ ko yërëm fen lañuy def su ko defee beneen yoon nga arnaqué waat aw nit ñu woowaat la léeg-léeg kii animé émission bi dana am ñu ko woo ne diw mi arnaqué na jox naa ko sama xaalis maa ngi koy woo jotuma nangam nangam mais du tee bu toogaatee benn un mois deux tegaat la ci plateau bi lan moo tax. mooy enveloppe yim lay jox pour nga invité ko ci plateau yenn télé yi commercial lañ ko def pour ñu invité ku mel noonu day fay xaalis su fayee benn cinq cent mille quatre cent mille ñu teg ko ci plateau bi arnaque aw nit seen yoon nekku ci waaye ku ko ci def mujj gu bon rek kenn du nekk di lekk alalu nit ñi di njuba di naan dama leen di ñaanal ak damaa yori lii laa ba noppi mu sedd ci yow mukk du sedd mukk waaw du sedd mukk léegi nag mu dem nag ba bëgg a nekk phénomène phénomène léegi nag di wax ci ñëwagul nag gars yi ñi xam dañoo ragal am nañu yàlla yi xamal li ñëwagul mais ñemewuñ sax di ko àddu di ko wax ñemewuñu ko waaye xamoo dara mën a kàcc plateau plateau site internet sit internet match bi un lay doon match bi deux match bi lii match bi laa te xaram ne sànga ba tax na tax na ñu dëgg ñu koy dénoncé te ñenn cooñu ñu rek lu dul ñi leen di dékk caméra waaye nag mi ngi noonu tey ni secteuru ngisaane gi nekkee lor ci nit ñi léegi noonu tamit la secteuru internet bi nekkee lor léegi ci nit ñi ku ci nekk yaa ngi uti fii marché bi ñëw diw nee na ma yaam foo ko jël tiitiree ko nit ñi daw xool nga gañee fii def ci sa monétisation xaalis bay dugg waaw kooku yi tamit li muy jox nit ñi ak ña teg ca kanamu nit ñi du ko seggati ndax li muy jiital mooy na am vie yu bari yum gañee xaalis loolu musiba la mbokk yi téere bii ngeen gis ma yor lañuy ñëw rek indi ci quelques hadis pour wane ne phénomène bi lu yàgg la muy ngisaane waaye ni mu yàggee la xaraam yi ni mu yàggee la xaraam yi téere bi ma yor bi ngi tudd at taajul jaamici lil usul fi ahadisi rasul cheikh mansour aliyu naasif moo ko taalif xaaj bi ma ci yor mooy ñetteelu xaaj bi xaaj bi ma ci yor mooy ñetteelu xaaj bi téere bi ci mool bi juróomi xaaj la daarul fikr ñoo ko mool ba ñëwee ci ñetteelu xaaj bi page deux vingt-trois am na benn bunt mi ngi wax ci ngisaaneek rëdd ci suuf ak yu ni mel mu indi xadiisu abi mas'ud radiyallahu anhu mu ne naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an thamani alkalbi wa mahri albagiyi wa xulwaani alkaahini mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na abi mas'ud moo wax loolu ne yenent bi sallallahu alayhi wa tere na njegu xaj ak li ngay fayee jigéen ji gàncatu ak li ngay weexalee ngisaanikat bi mu ne alal yooyu yëpp dafa xaraam alal yooyu yëpp dafa xaram ki woo borom jinne yi ne ko xoolal ma foofu mu xoolal la nga fay ko xaalis ba dafa xaraam defal ma ay affaire foofu mu def ay affaire jox la nga jox ko xaalis xaalis ba dafa xaraam wax naa la ne man nga ñaan loo nitu yàlla jaamukatu yàlla kuy ñaan ci alxuraan dagan na alxuraan dagan naa bind naan dagan naa bind sangoo dagan naa bind takk waa dagan na takk gi moo am werante takk ndax dagan na am daganul te werante bi ci jamonoy saxaaba yi la ba tey ndax alxuraan takk ko day dugg ci tamima bi leen ci wax ne mën man allaqa tamiman faqad ashraka ndax da ciy duggam déet sayyidatuna Aïcha bokk na ci ñi doon wax ni alquran bokkul ci tamima tamima alxuraan bokk ci salon sayyidatuna Aïcha ku bind alxuraan takk ko mu ne dara nekku ci nekkul bokkaale moo tax mën a dagan na ci waxam jooju laa sukkandiku ak yeneen i saxaaba yoo xam ne jëmmi alxuraan bind ko takk ko xaraamul mais takk fas takk béjjën takk pettaaw takk yi galan yooyu moo xaraam mooy dugg ci shirk waaye jëmee alxuraan xul a'uuzu bi rabbil falaq xul a'uuzu bi rabbin naas faatiha bind takk takkal sa doom ah, yàlla yàlla nga jëli waxam kay bokkaale du fa nekk waaye bant bi xor bi xaaw bi béjjën bi hmm? yooyu mooy tamima yeneen bi nekk ku ko takk bokkaale moo dama ne ñaankat bi ñaanee ci alxuraan comme mocckat bële moccee woon faatixa ka jaan màttoon loo ko jox du dugg ci ngi du dugg ci weexal bii xaram waaye gisaanekat yii ah jabarkat yii da gis koo xam ne mi ngi bàkkoo ka waaw man may boroom laar bi laar bi ay buum yu jël fas ko def ci nangam nangam loolu mooy laar yonent bi nee na weexal gay jugee ko ci yow jëm ci ñooñu dafa xaram alkaahin mooy lan gisaanekat nan lañ ko définir boo ñëwee ci sarxu bi dafa wax ni alkaahinu wa huwa man yaddai ilmu lxaybi fi l axbaari bi maa yakunu fi l ardi ngisaanekat mooy kii woote woo xam li nëbbu ci ay mbir yu nar a xew ci kaw suuf mu ne arab yi siiwoon nañ am ñu mel noonu ku mel ne sëq ak satiix waaw mu ne ngisaanekat yazaamu anna lahu taabian min al jinni yatiihi bil axbaari mu ne day woote woo moom ngisaanekat bi ne dafa am jinne ju àndal ju koy wax li nara xew gis nga loolu moo taqale ngisaanekat bi ak ci jaamu yàlla ba sellal yàlla di ko wan ak di ko xamal li dikkagul léeg-léeg am ñu juum ci li dikkagul ne kenn xamu ko ku dul yàlla njuumte la ki ko xam ku dul yàlla moo koy xamle soo yemee ci ne du ko xamle rek fa ngay juumee mais boo ne yàlla dong nga ko xam di ko xamle juumoo am na koo xam ne mbir na mën a xew mu tëdd guddi yàlla xamal ko ko loolu yàllaa ko xam ne jinne xamalu ko ko demul lëkkaloo ki jinne pettaawul deful dara lu dul jaamu na yàlla sellal yàlla sellal ruuxam ba yu baree bari suñu borom daf ko koy wan daf ko koy wan li ko wuutalee ngisaanekat bi ngisaanekat bi moom li muy gis wala li muy wax jinne moo ko koy wax dana ñëw léegi ci xaddis bi ci kanam lay gën a leere kii li muy xam yàlla moo ko koy xamal kee la muy xam jinne moo ko koy xamal am na benn téere bu tudd kasful xumma ko taalif moom it bi muy définir alkaahin dane man yuxbiru bil ashyaa'i wa yazaamu anna al jinna yuxbiruhu bi daalik moom it noonu la ko définir alkaahinu gisaane kat mooy kuy wax ay mbir yu dikkagul di woote woone jinne yi ñoo ko koy wax effectivement am na koo xam ne moom day nari naram rek jinne waxu ko dara yàlla xamalu ko jinne waxu mais man na fen ñeme fen miin fen di dund ci fen moo tax moom faaw day wax ni eh, ay fenam pour ci lay dund jinne xibaaru ko yàlla xibaaru am na koo xam ne nag ay jinne la lëkkalool ñu koy xibaar danañ ci ñëw léegi xadis bi ñu jàng léegi Buxaari moo ko solo situna Aïcha radiallahu anha ne saala unaasum rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an alkuhaani fa qaala laysuu bi cheyin qaalu yaa rasulallah yaa rasulallah fa innahum yuxaddisuuna axyaanan bi cheyin yakuunu xaqan qaala tilka alkalimatu min alxaqi yaxtafuha aljinniyu fa yaquruha fi usuni waliyihi qarra fa yaxlituuna fiiha akthara min miati kadbatin rawaahu cheykhaan situna Aïcha radiallahu anha bi ma tuddoon léegi nekk soxna yenent bi sallallahu alayhi nekkoon soxna yenent bi sallallahu alayhi wa ne aw nit dañoo laaj yenent bi ci mbirum gisaane mbirum seet yenent bi ne seetkat yi nekkuñ ci dara Sayyidatuna Aïcha daal di ko wax ne ah léeg ñu wax ay mbir lañ wax nekk dëgg kon boo ne ma nekkuñ ci dara naka laa koy déggee ndax léeg ñu ne dara dana xew loolu xew xam nga lii nax gaa ci gaa yi mooy dañ naan nangam gii dana xew lañ waxoon am na mu aw nañ ko waxee woon lu mel ne Sénégal dana gañe match bi di ñëw 2-1 Sénégal gañ na 2 ñu ne laay diw dafa aay yàlla da koo may mayu yàlla fu ne la ne fekk du mayu yàlla de jinne la ñenn ñi jinne la ñenn ñi tànd la ñenn ñi dañuy tàndale ñenn ñi jinne moo leen wax ne leen deux un la match bii doon jinne yenent bi ne ko waaw loolu ñuy wax de te mu nekk dëgg jinne moo koy jël jinne moo koy jël di ko euh, sab ci nopp ka mu lëkkalool comme sabug ginaar maanaam daf naan ko nangam dana xew nangam dana xew nangam dana xew noonu la ñuy firee xadis bi firee xarra déeg xarra dajaaja comme ginaar ni muy sabee noonu nee na noonu la ñuy joxee information bi kiñ ñu kiñ lëkkaloon seen seen waliyu bi waliyu jinne yi kii nee moom dafa lëkkaloo ki jinne de am na am na koo xam ne dafa lëkkaloo ki jinne te mooy seytaane yi te gis nga mbokk yi ami jinne moo gën a yomb fii lu yomb ami jinne ak a yomb su ma ne jinne yi nag mooy seytaane yi jëlal léegi say béjjën say gën tuurum soow jël nàngami pettaaw def ca nàngam ak nàngam teg ko ci bërëb di fa tuurum soow di tuur deret léegi tey am lu la tàmbalee feeñu di wax ak yow muy seetaane nga tàmbalee am connexion ak moom alxames ju nekk mu ne la rey fi benn xar àjjuma ju nekk reyal ginaar altine ju nekk reyal bay gis nga léegi ci yooyu ngay nekk mu lay conditionné ndax seytaane yi def ci am ñoo xam ne deret la ñuy dundee deret soow mi am na ci ñoo xam ne moom lañuy dundee soow mun na nga gis sama mbokk sama mbokk yële sama mbokk yaaya lébu ya bu ñuy def seen seen xam seen euh, mbirum ndëpp yooyu ndëpp la defe naa ndëpp waaw seen ndëpp yooyu nga gis soow maak deret ja ndax jinne yi la ñuy neexal soow deret tëkk dafa am jinne yoo xam ne dañoo bëgg sabar boo liiree téere bale ba tey ngay gis ne am na jinne joo xam ne sax sabar la tudd sabar moom kum jàpp da ngay tëb kuy fecc bi ma liiree ba yegg foofu ci téere boobu laa ah ñun kon suñ sabar gii ñu tuddee sabar mbaa yëg nañ ne dafa am jinne ju tudd sabar na jinne joo xam ne sabar la tudd léegi gis nga bu ñuy def ndëpp yooyu ñi jinne jàpp ñëw ñu tëggal leen ñu tëb fecc tuur deret tuurum soow mu bàyyi leen gis nga léegi neexal nañ jinne yi xor ko jox ko benn neexal léegi nag mu may nit ki liberté ab fan ay fan walay weer xëyaat songaat ko ñu jëlaat yóbbu ne dañ ko defal tuur <laughs> jinne wala seytaane yi ku xam seen caay-caay da leen moytu otage lañ lay jàpp otage lañ lay jàpp Mhm. yenent bi nag nee na ñooñu lëkkaloo ki jinne ñooy sàcc xibaar ñëw di leen ko jox mu ne fa yaxlituuna ñu daal di jaxase fiiha ci xibaar bi leen jinne ji jox ak sara lu ëpp min mi ati kadibin ci téeméeri fen ñaareel seetlu leen rek ku ci wax nga ne li mu wax yëpp dëgg la da ngay toog gis ko mu tegalay fen rek amoon na ci ku jigéen ku ngeen xamoon mu mënoon lool di prononcé ci làmb yi di ci wax di way daane nii lay daanee bu waxee rek ñaareel mu amee noonu waaye gis ngeen depuis lors day nar rek lu mu waxati du doon dëgg mhm. ba noppi waat nag boole ci waat di wax lu dul dëgg nekk bàkkaar yenent bi nee na jinne la ñuy lëkkalool jinne ji mooy jëm sàcc xibaar ñëw wax leen ko benn dëgg mu rax ci téeméeri fen nan la ñuy sàccee xibaar ñoom jinne yi dana ñëw ci xaddis bii di ñëw hmm. abdullah ibn abbas radiallahu anhu ne radiallahu anhuma ne jenn waay ju bokk ci lansaar daf ma nettali ci saxaaba yi la bokk ne bis dañoo toog genn guddi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi toog rek am benn biddiw bu fàq leer nañ mhm, léegi da ngay toog moom yàgg rek gis benn biddiw bu fàq mel na luy naaw nii comme benn picc wala avion buy naaw kuy tëdd di xool asamaan guddi léeg-léeg nga gis biddiw bu mel noonu eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maada kuntum taquluuna fi l jaahiliya ida yi bi misli hada waaw bu amaan biddiw bu fàq comme nii ci jamonoy ceddo ga lan ngeen daan wax ñu ne ko yàllaa ko yonentam de moo xam waaye kunna naqulu wulida laylata rajulun azimun wa maata rajulun azimun comme ni mi amee Sénégal laataa may gis xaddis bi daan naa ko fàttali ko ca Saalum dañ naan tëdd rek gis benn biddiw bu fàq ci asamaan ñu ne laay dana am kilifa gu mag gu fi bàyyeekoo de biddiw bi loolu lay tàgge xoolal ñeme yàlla googu ndekete loolu ca jamonoy ceddo ga la woon man tegoon naa Sénégal gi rek ko koy wax ndekete ca avant yeneen bi la nit ñi daan wax lu mel noonu mu amaan benn vidéo bu faat yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu la wa sallam ne leen laa yurma biha li mawti ahadin wala li xayaatihi leen biddiw du fàq ngir kenn dafa faatu wala kenn dafa gane àdduna mun leen waaye sunu borom bu dogalee benn dogal malaaka yi yenu xaras dañuy sàbbaal malaaka ya nekk ci asamaanu juróom-ñaareel sàbbaal sàbbaal yi di ñëw ba yegsi ci asamaanu benneel gii malaaka yi lan la ñuy jokkalante dañ naan lan moo xew malaaka ya nekk ci aras wax ko ñi nekk asamaanu juróom-ñaar yi nekk asamaanu juróom-ñaar wax ko ñi nekk asamaanu juróom-benneel yooya wax ko ya ca juróomeel yooya wax ko ya ca ñeenteel yooya wax ko ya ca ñetteel yooya wax ko ya ñaareel ba ci asamaan sii nee na bu yegsee ci asamaan si na fa taxtaful jinnu sama jinne yi dañuy tegaloo di tegaloo di tegaloo ba yegg ci asamaanu benneel fa la ñuy sàccee xibaar bu njëkk daan nañ yéeg ba weesu asamaanu benneel mais bi yenent bi gënee àdduna sallallahu alayhi wa sallam lañ leen dàqee foofu yépp ba mujj gi ci asamaanu benn rek la ñu am agsi yenent bi nee na foofu la ñuy déggee xibaar bi ne nangam na mun a xew sallallahu alayhi wa na ñu tàbbal ko ci seen waliyu yi waaw Sénégal aka bari waliyu seytaane aka fee bari waaw ñuy prononcé ni yëpp di wax di kàcc di nar di teg ay waliyu seytaane te waliyu seytaane bi sax mooy ñi nga xam ne ñu ngay lëkkaloog ñoom di leen gis mais gaa yi ci bari nii dama wóor te leer ma kàcc rek kàcc tegi feem di naxaate rek waaye ñi ca amuy jinne sax lëkkaloo ki jinne ya waa kay jinne yooyu nag buñ jotee xibaar boobu dañuy ñëw nag partagé ko ak ñoom mu ne fa jaawu bihi ala waji ala wajhihi mu ne ñu indi mbir ma fa huwa xaqun fa huwa xaqun nee na mbir ma ñu indi di dëgg la walakinnahum waaye ñoom nag yaqrifuuna fiihi wa yaziduun dañuy soppi mbir ya dolli mhm. dañuy soppi mbir ya dolli ca maanaam jinne ji bu la koy indil lim la indil mën naa nekk dëgg waaye yow mi lëkkaloo jinne ji yaa ci yaay yaay njar ci soow mi ndox nag yaay njar ci soow mi ndox loolu kon na leer ci sa bopp ne mbir yi noonu lay ñëwee damay faral di wax ne xëybu maanaam li dikkagul dafa mel ne secret d'état secret d'état boo ko jëlee siiwal ko ci sunu réew mi ñu nekkee yoon day dal ci sa kaw ndax dañ koo tere secret d'état mais bu fekkee état bi ñoo la wax ne demal nga wax ko yaay seen porte parole boo demee wax ko nekkatul secret d'état amatul benn problème ok noonu laay misaalee nitu yàlla bi jaamu yàlla ba sellal wala yenent bi nga xam ne yàllaa ko yónni li muy wax ci li ñëwagul loolu mi ngi mel ni dañoo délégué kenn ci membre gouvernement ba mu dem waxi secret d'état boobu noonu li mhm. wala boog am ñu dem sàcc xibaar bi ñëw indi ko jinne nag mooy sàcc ji xibaar bi moom moom du jaaree ci voie bu normal bi mais day dem sàcc ko su boobaa nag ku mu ko jox ak moom yépp dañ koy amee daal li il faut mu leer ci bopp yi tey boo ñëwee rek ne li ñëwagul kenn xamu ko ku dul yàlla dana am koo xam ne da nga jaxase ndax moom dana gis kuy wax la muy wax di am te léegi nga ne li ñëwagul kenn xamoo ko ku dul yàlla loolu ci bopp te yooyu li ngay wax xamoo ko kon waaye danga naan li ñëwagul kenn xamoo ko ku dul yàlla wala mu xamal ko ku ko soob ciy jaamam yàlla léegi nag yan voie lay xamale moom sunu borom fa la wax ji nekk nag yonent ba moom dana am lu dikk ñu jox ko ko ci lu tudd wax yu wax yu wax yu lay tudd ruya xitaabun kadal ilqaau min malakin maratibul wahyi laa tartab wala tahi yonent mu gént mu nekk wax yu léeg-léeg mu am lu tàbbi ci xelam mu nekk wax yu léeg-léeg malaaka ñëw wax ak moom mu nekk wax yu gannaaw bu fi yenent bàyyeekoo nag yenent bi nee na dara desu fi lu dul gént jullit bu baax gént jullit bu baax am na loo xam ne ilham lay doon du doon waxyu mais lu la yàlla yenkewal la ku mel ne Seydina Umar ibnul Xataab yàlla mayoon na ko lool ci lool ba yenent bi wax ne ca xeet yi jiitu woon am na ci aw nit ñoo xam ne dañ leen daan déey bu fekkee am na kenn kum doon ci sama xeet mu ne Umar ibnul Xataab lay doon Seydina Umar dafa amoon kasfu waaw ci la baatu kasfu di ñëwee léeg mën na bañ a doon loo gént mais mën na doon loo xam ne nii mën nga gis jigéen nag yàlla xamal la li ci biir bi kasfu la hmm, yooyu yàlla daf ko codé li ci biiru jigéen kenn xamu nga ko dul yàlla Sayyidatuna Aïcha dem na ba daan wax ne li nga xam ne moo nekk ci biiru jigéen ak yeneen yu ni mel am na yu bari yu ñëw ci benn xadis bi yeneen ci bi waxee ne caabi kumpa yi juróom la kenn xamu ko ku yàlla li nekk ci ruuxu jigéen kenn xamu ko ku dul yàlla xew suba kenn xamu ko ku kañ lay taw kenn xamu ko ku yàlla nit ki fan lay faatoo kenn xamu ko ku yàlla kañ la bis penc kenn xamu ko ku dul yàlla surtout Aïcha daan na sévère ba yegg ci ne ku ne ku woote woone xam nga ci benn nee na kàcc nga waxoo dëgg léegi xadis bi boo ko jàngee effectivement kenn xamul ko ku yàlla waaye bàyyil baatu waaye bàyyil xelu xanaa ku ko yàlla xamal léegi boo jëlee nga teg fële ci wàllu àdduna damay ñëw rek pour yenn yi leer ci suñ bopp pour ñu mën a firi nag gaa yeeg li ñuy def ni mu wuuteeg li yàllay xam le ci ku sel boo ñëwee tey ne li nekk ci biiru jigéen kenn xam nga ko du yàlla ku ne xam nga ko waxoo dëgg mënoon nga ko wax ci jamono yi écho amagul waaye tey bu écho amee nga ñëw benn tubaab bu gëmawul yàlla nga ñëw ne ko waaw li nekk ci biiru jigéen kenn xamu nga ko dul yàlla mu ne la non ñun technologie yegg na foo xam ne jigéen day ëmb ñu wax ko doom ji doom ji jigéen la wala doom ji góor la te exact exact day juddu nekk doom ji jigéen wala doom ji góor yàlla moo mayee xam-xam boobu ubbil ñu porte boobu noonu le mu jaaree foofu ni nga xamee ne noonu la ko yàlla xamalee gynécologue bii nii kii di def rajo nii noonu la ko yàlla mën a xamalee aw nitam jigéen romb ko mu xam góor la wala jigéen loolu kasfu la ba tey rek diggante yàlla la akub yenentam yàlla la akub waliyoom léegi nag mu génn li li am nag sariya di ko condamné mooy lii génn kaadaru yàlla ak ay nitam mu leen koy xamal léegi nag dem ci seytaane ki aw nitam mu leen koy xamal ñaar yooyu doo nga fi nekk li ñëwagul yàllaa ko mën a xamle wala boog seytaane sàcc ko dem xamal ko aw nitam ñaar yooyu moo mën a nekk léegi nag ku ñëw ci kooka nga xam ne dafa lëkkaloo ki jinne day pettaaw day seet nga ñëw ne ko dama bëgg nga seetal ma mu yëngal pettaaw yi benn ñaar juróom ñett taxaw sa yoonu tukki bi sa sëy bi sa ngoro gi sa nangam gi mu wax la nga gëm lam la wax léegi lan mooy sa àtte yow ci la ñuy ñëw yeneen bi nee na man ata arrafan fa saalahu an cheyin lam tuqbal lahu salaatu arbaina layla ku ñëw ci kuy woote woone xam na li dikkagul nga laaj ko menn mbir mu dëggalal la ko mu wax la ko nee na ñeen fukki fan boo jullee yàlla du ko nangu donte lim la wax gëmoo ko de waaye da nga ne xaaral naa xool rek waa ji ba xam li muy wax nga ñëw ne ko seetal ma mu yëngal petaaw yi ne la nangam nangam nangam dana xew nga gëm ko ñeent fukki fan boo jullee yàlla du ko nangu mhm. ñeent fukki fan boo jullee yàlla du ko nangu léegi bu maanaam gëmoo ko laa bëgg a wax gëmoo ko boo ko gëmee àtteem mi ngi ñëw kii dañ la wax gëmoo liñ la wax 40 jours boo jullee yàlla du nangu kii nag dañ laa wax nga gëm ko man ataa arraafan aw kaahinan fa saddaqahu bi maa yaquulu faqad kafara bi maa unzila ala muhammad su la waxee nga gëm ko nag doonatoo jullit doonatoo jullit beneen riwaaye bi noonu la ñëwee dañ laa wax gëmoo ñeent fukki fan boo jullee yàlla du nangu ñu wax la nga gëm doonatoo jullit kon ku toog ne match Sénégal bi nangam moo ciy xew nga gëm ko yow moom doonatoo jullit kon Sénégal ñaata ñoo war a yeeslu ji ñu doonatuli jullit hmm? ñaata ñoo war a yees lu ji ñu doonatuli jullit waaw am na lu ñuy tuddee rëdd ci suuf rëdd di wax ay mbir ci la ñuy wax ramlu wala yu ni mel am na xadis bu ñëw di ko daganal maanaam ramlu rëdd ci suuf calcul ci biir yooyu yëpp lay dugg am na xadis bu ñëw di ko daganal mais même xadis bii di ko daganal boroom xam-xam yi biñ koy firi dañoo wax ne sax waaw kenn mënu la justifier ne xam-xam bii mooy xam-xam boobu xadis ba doon defar daganal ndax am na yeneen bu ko daan def ban xadis la ban xadis la ban xadis la Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami moo ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am na mbir yu ñaan def ci ceddo ga mu ne ko yum doon mu ne ko dañ dem ci gisaanikat yi mu ne bu leen fa demat demati ñu ne ko dañ daan def tatayur boo génnee di tukki jël picc sànni bu jaaree ndeyjoor nga ne baax na bu jaaree càmmoñ nga ne du baax mu ne loolu de léeg nit moo koy def ci xelam rek bu leen ko dëggal ñu ne ko am na ci nun ñoo xam ne dañuy rëdd mu ne benn yenent ci yenent yi daan na rëdd ku rëddam dëppoog rëddu yënante boobu euh, fadaaka dara nekku ca xadis boobu muslim moo ko solo ci la ñenn ñi ne xam ram ramlu ci la jóge ak xisaab ak yu mel noonu waaye boo ñëwee ci sarx bi ba tey dane daganul sax dëggal kii woote woone am na xam-xam boobu noonu le ndax xam-xam bi dafa nekk lu ñu réere nee na am na ñu wax ne yenante boobu moo doon Idris ñi ne daanu yàlla am na ñu ne xam-xam boobu noonu le ba léegi dafa réer kon nga gis ne méthode bu ñuy jëfandikoo ngir xam lu dikkagul sharia bunt yëpp la tëj bii mu ci ubbi nii sax ci rëdd borom xam-xam yi dañ cee werante ndax xam-xam bi mi ngi fi ba tey wala jóge na fi xam-xamu calcul wax wala nangam fa la werante bi nekk kon bu amee lu ci dagan sax akas néew lu jëm ci wàllu calcul la wala rëdd ci ku xam xam-xam bi dëgg ci ku ko xam ndax xadis bi waaye boroom xam-xam yi nee nañ far sax ku koy woote woo jarul a dëggal ndax la muy wax mën naa bañ a dëppoo ak xam-xam boobu yenent bi doon wax ne am na yenent yu ko daan def kon mbokk yi ñu yemale foofu jataay bi li ñu leen bëgg a wax rek mooy nañu sàmm sunu pas-pas nañu wattu sunu pas-pas ci wattandiku jabarkat yi gisaanekat yi narkat yi ñu wattu ko ci wattu jabarkat yi gisaanekat yi narkat yi balaa ñu noo yàqal sunu pas-pas bu njëkk xoy yi la daan doon xoy yi léegi rek maa ngi gis téere bi gëjoon naa ubbi ko fi ma ci yemoon doon ci def waxtaan ci mbirum xoy yi la woon maa ngi gis bi ma dugal ci page bi maa ngi gis ma bind ci xoykat yi waxoon nañ ne deux mille deux mille douze benn militaire mooy jiite Sénégal dana am yëngu-yëngu yu am ba nguur gi dañ koy nangu militaire a koy jiite xoykat yi ñoo ko fi waxoon ak yu baree baree baree bari yu ñu waxoon te dara du ci dëgg pour wane ne rek yu mel noonu léeg-léeg mooy jàpp otage sénégalais yi ci yàlla yàlla lu gi yàlla yàlla gi nañu bàyyee yàlla ak yàllam ji ñu des nekk jaam di jaamu yàlla di sellal tegu ci yoon winu yàlla tegu loo te wattandiku yi nga xam ni du nu jural lu dul dajeek merum yàlla ëllëg yomal xiyam wala yaatu billah ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seetaan bi li lañ leen indiloon ci seen émission axiru zaman ba beneen jataay ci beneen émission incha allahu taala wa bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak